waxtaanu suba waxtaanu suba waxtaanu suba la bu leen rajo leeral fm bu luga cent di baaxe suba su ne di ci dalal kenn ci boroom xam-xami lislaam yi muy waxtaan ci tomb yu fasantikoo yoo xam ne dina jëriñ jaam bi ci bëccëgam bi yépp saa yoo yeewoo war nga am lu lay gindi di la leeralal sa yoonu jëm ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ànd leen ak rajo leeral fm 104.6 suba bu ne bu sept jotee maanaam juróom ñaari waxtu ci suba ci jataay bi ñuy woowee waxtaanu suba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 فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi leen di wax yal na yàlla wàcce jàmmam ci yéen boo leenu defal jàmm te boo leenu defal ak njub saxal ñu ci bañu dajee ci ak moom loolu yomb na ko loolu tabaraka wa taala sunu jataay yi nga xam ne mooy jataayu leeru suba ñu am ci ay fàttalante rek ñuy fàttalante ak yéen te ubbi ci bunt boo xam ne bunt bu yaatu la booba léegi ñu ànd ci ak yéen muy al ba ñëw ci nag rafetal gi nga xam ne mooy rafetal gi war a dox diggante jullit ñi ak ki nga xam ne mooy yonente bi yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam bi mu yónni ci jaam yépp ñi ngi dox ci dundam googu di ci waxtaan ndax it nag nit ngir mu rafetal dara fonk ko jox ko gëddaam ak xam da koy jiitu moo tax ñu doon wax ci ak dundam ba toll ci jumtukaay yi nga xam ne way bokkaale yi waa Makka ci don nañ ko jëfandikoo pour fay leer gu yàlla xam nga ne yàlla ci alxuraan ne yuriduuna an yutfi'u nuura allahi bi afwaahihim wa ya'ba allahu illaa an yutimma nuurahu walaw kariha alkaafiruun هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون mu ne ñoom ñi nga xam ne ñoo taxaw ci gënal wet gi muy yéefar yi dañoo bëgg a fay leeru yàlla waaye yàlla bañ na lépp xanaa rek li mu nangu mooy mottali ak leeram te mooy diine ji dana jàll dana egg fépp foo xam ne maanaam borom bi tabaraka wa taala bëgg na mu yegg fa te kenn du ko mën a gàllankoor donte neexut ñu weddi yàlla loolu mu xam la ne moo yónni ndawam mu indi jub andi dëgg mu yenente goo xam ne gu leer la njariñul kese la mu indi diine dëgg ak donte ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi loolu neexu leen leer googu yàlla joxoon Muhammad alayhi salaatu wasalaam jumtukaay yi nga xam ne moom la noonu lislaam yi doon jëfandikoo ngir fay ko ci yooyu lañ tolloon di ko leeral ñi nga xam ne noonu la borom xam borom xam-xam lislaam yi yaxale te ñu ngi ko génnee ci alxuraan ak waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax it nag bu ñuy wax ci siira mbokk yi te di waxoon nañ ko ci njëlbeen ga li jiitu ci ay tànqukaay yu ñuy tànqee dundug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy alxuraan alxuraan wax na ci lu bari waaye itam jëmmi ay hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy wax yi mu doon wax ak jëf yi mu doon jëf ak yi nga xam ne dañ ko doon wax mbaa ñu koy jëf ci kanamam mu koy nangu yooyu maanaam sunnaam ak wax yàlla tabaraka wa taala mooy jiitu ci lu ñuy jëlee ak dundam moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon nag ñu tibbe ko ñoom borom xam-xam yi ci alquran ak sunna soosi ak ci téere siira yi nga xam ne moo fandoo di jàngale loolu di ñu jàngal asalib muy yoon yi nga xam ne moom lañu yéefar yi doon jëfandikoo ngir gàllankoo woote sunu borom tabaraka wa taala ñu tuddoon ci démb euh, juróomi juróom benni euh, jumtukaay yoo xam ne doon nañ ko jëfandikoo kon ñëw ci juróom juróom-ñaar li lañ tuddoon kon ñëw juróom-ñetteel bi juróom-ñetteel bi ci ñu doon jëfandikoo ngir fayleer leer googu mooy di ŋàññi alquran ak di ŋàññi yàlla ci boppam ak sax di ŋàññi Muhammad alayhi salaatu wa salaam kon daal saaga saaga daal lañ ko doon faje xam nga saaga moom ñaari ñàkk aw lay dana ko di waral ak tëkkoo ak tiitalaate ndax loolu gis nga Firawna ba ko Muusa andilee dëggu yàlla mu leer Muusa dagg santeeg moom ba dem loo ko daa daal di jéggi yooyu yëpp ñëw nag ne ko léegi maanaam danaa la tëj suspendre la maanaam def la ni def la naa jagg sa tànk yi sa loxoy jaawale xupp ko tiital ko moom ak ña nga xam ne ñoom la àndaloon muy euh, ña nekkoon ay jabarkat démb Firawna bëgg loolu utiliser waaye ñoom yàlla tawfiqal leen ñu gis dëggu yàlla daal koy jël ci ñooñu ñëpp Moussa da leen a baa boole maanaam Firawna daa boole menacé leen ñu ñëpp waaye ñoom téerewul ñu sax rek na inna amanna bi rabbina li yaxfira lana xataayaana wa ma akrahtanaa alayhi min as-sihr wallahu xayru wa abqa ñun gëm nañ suñu boroom ngir lan dañoo bëgg suñ ñaawteef yi mu baal nu ko li nekkoon te du dëgg waaye itam mu baal nu li nga xam ne yow na yaa ñu ci forcé woon ci ak njabar ndax yàlla moo gën te moo gën a des kon nag loo xam defal loo xam nga dem ca waaye ñun dañoo xas xam dëgg te dëgg luñ ko jënde kenn ba tax ñu ne ko ah, ñun daal ginnaaw ba nga xamee ne Euh, wallazi fatarna maanaam li nga xam ne moo ñu dikkal ci dëgg waar nañ ci yàlla mi nga xam ne moo ñu bind ne duñ ko jëndee seen neen yooyu ba ne ko euh, bañ bam ne leen law la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min xilaaf wala usallibannakum fi juzu'i naxli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa dañ ko ne la qaalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al bayyinat wallazi fatarna li ñu dikkal ci ak dëgg gu leer daal ñu ko gënal yow ñu la gënal ci kaw dëgg waaye dëgg ñu gënal kon yu mel noonu rek mooy doxinu yonente yi mooy doxinu ñi nga xam ne dañu jaar jaar yonente yi yoonu yonente yi kon saaga gi ñu alxuraan di ko ŋàññi ak di saaga yàlla ak di saaga muhammad xanaa kuy saaga di saaga yàlla moom foofa boo saaga muhammad li muy ñaaw ñaaw dootu yéemeeti ndax muhammad moomu ndawal yàlla la di jaamam kon nag bokk na ci loolu jëfandikoo mooy di ko ŋàññi ak di ŋàññi alxuraan ba tax borom bi tabaraka wa taala ko wala tajhar bi salaatika wala tuxaafit biha maanaa ibnu abbas nee na ni ko buxaari muslim ñettlee nee na loolu daa wàcc te fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi màkk di nëbbut di jàng alxuraan daana su ma saana julli da daan yëkkati kàddoom ci alxuraan bu ko mësul koo day déggee rek daal di saaga yàlla ak di saaga yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla ne ko kon ko bul béral sa njàng mi ba mësul koo yi di ko dégg bokkaalekat yi di saaga alxuraan waaye itam bul ko yalu ba ñi nga xam ne ñoom nga àndal luñ ko dégg waaye nga digg doomu kon kon gis nga loolu maslaxa bi muy njariñul daawa muy wooteel yàlla dañ ko war di dàkk di ko jiital ci maanaam euh, ak njëriñ lor joo xam ne mën na koo gàllankoor wala lor joo xam ne mu ëpp dañ koy màndaxe ak njariñ li nga xam ne moom la ñuy séenu ci li ñuy def kon lo yëkkati kàddu gi am na njariñ bañ dégg ko waaye bu ca lor nekkee joo xam ne nag saaga yàlla ak saaga alxuraan nag day jar kon ñu wàccee ko ba nga xam ne ñu ko soxlaa dégg rek ñoo koy dégg gis nga foofu itam ab bind nga fu mu am solo kon du tax ñu bàyyi alxuraan ñu bàyyi ko jàng waaye nag danañ jéem a sàmm war ma alxuraan sun kem kàttan ba kenn du jaare ci ñun di saaga yàlla wala mu saaga alxuraan kon loolu beneen jumtukaay la woon ci topp mooy euh, léegi nag wut ay alliés ca bitti wut ñeneen ñuy jokkalool ñoo xam ne euh, ñoo leen di proposé ay laaj ne laaj leen ko ko laaj yoo xam ne mën tontu bu defee mu weddam loolu waa Makka lañ ko daan def dem ci yahudi xam ngeen ne yahudi ñu ngi dëkkoon Madina Euh, ñetti giir nga foon ngir yahut waa Makka dañ leen daan ko ci ay laaj yoo xam ne laaju xóot la ngir buñ ko laajee Muhammad bu ko sallallahu alayhi wa sallam bu ko tontu mu daal di nasaxal li muy wate moo tax dañoo yónni ab délégation Madina ñoom waa Makka ka ko jiite woon mooy Nadr ibnu Xaaris nga xam ne ci Quraysh la bokk di mbokk bu jege Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Uqba ibnu Abi Mu'ayt nga xam ne moom itam ci même ngir gi la ñu ngir ñu wuti ay laaj. xam naa ñu ñoom ñoom ñàkk nañ pexe lii mooy jeexal doole moom laaj xam ne dañ ko koy jox euh, bañ demee yahudi ne leen laaj leen ko ahlul kaafi xam nga ahlul kaafi yaakaar naa ko ñu ko laaj yàlla wàccee aw saar woon dañ ko dañ ko far de suratul kaafi leeral seen mbir ah <laughs> loolu moom euh, moom pexe daal nay féete suuf laaj leen ko sul qarnayni naka nu sul qarnayni ba tey la alquran leeral wa yasalunaka anil qarnayni <laughs> mat na sëkk leeral gu mat euh, laaj leen ko ruux ruux it la ci yàlla wax leeral wa yasalunaka anir ruux qul ruux min amri rabbi su ko defee kon laaj yooyu laaj yëpp tontu ye cay alxuraan andi moo cay ay tontu euh, bu ko defee lañ ca laqoon ca ginnaaw laaj ba duñ ko ci mën nga dégg ci na yow jullit bi léegi-léegi deesi la laaj ay laaj yoo xam ne du laaju bëgg a xam waaye laaj ngir yeneen la su ko defee itam euh, xamee yooyu ci bay tontu ay laaj lu am solo lay doon ngir bu dee laaj bu jëru tontu fax ndax xam nga fi moom lim nekkul ruux min amri rabbi kooku moom da da koo daal di bàyyi ci biir rek faram fàcce leen ca dara laaj yi nga xam daa jël faram fàcce muy asxaabul kaafi ak asxaab ak zulqarnayni gis nga ko faram fàcce nga jël foofu bind mbokk mi tëdd mi xam ne du laaj yëpp la ñuy tontu du laaj yëpp itam la ñuy faram fàcce ndax ñiy laaj léeg-léeg duñu laaj ngir bëgg a xam waaye dañuy laaj ngir yeneen loolu jumtukaay la pour yàqal koy jàngale l'islam léegi ñu laaj laaj boo xam ne boo ci tontu sam jàngale mën na faa doxe maanaam lépp doxe fi bi géej te kooku di la laaj dara nekkul ko ci loolu rek moo ko tax a jóg kon yow bul ko jàppandalal pexem moomu di ko jàpp di jàppale seytaane ci sa kaw dëgg la diine moom dañ ko war a jàngale mu leer waaye nag euh, dañuy sàmmanteeg euh, li nga xam ne mooy njariñul jullit ñi di sàmmante li nga xam ne mooy njariñu liggéeyul islam bi ba kenn du la mën a tabbal ci kàmb goo xam ne bu noppee day tàccu daal di wéy jàll feneen mbokk te di fukkeelu usloob bi biñ jëfandikoo ngir gàllankoor ko mooy nag léegi biñ lambee lamb yëf yi dëgër léegi ñu ñëw na di ko xëpp li ngir ñu essayé ba xam loolu nu muy jëriñ ñu yónnee Utba ibn Rabi'a nga xam ne mbokki boppam la ñu yónni ñu ko jege ndax ñoom neen la daanaka ñu yónni ko mu dem ne ko waaw yow de xam naa ne yónni saa sama lay waxal sama doom mbokk kon sama doom yow day sa wàccuwaay fi nun wàccuwaay bu rëy la dañ koy waxee waaye itam day li nga andi day dafa rëy lool da ngaa teqaleem nit ñi gis nga gis nga tuuma yi saa bu nit jógee di jàllale kaddu yàlla ñaare dana faral dégg lu mel nii ndax loolu ñuy wax ne da ngay teqale nit ñi léegi-léegi ak dëgg ngi ci ndax li ci ak dëgg mooy nit ki nga xam ne daa nekkoon ci lëndëm saa yu ko génnee ci lëndëm leeral ko ba mu xam fa war a jaar di dox day teqale ko ña nekk ci lëndëm ga nekk ci leer dëgg la loolu teqale la waaye est ce que ñoo yow yaa teqalee wala ñoom ñi nga xam ne ñoo jëru ca yoon wa ñoo teqali ko ndax yoonu yàlla siraatu mustaqim la mooy jëfaan kon tuwaat ci yoon moom daa mel ne moo teqali ko ba noppi di jiiñ ki jaar ci yoon wi naa ko yaa teqale wala yaa teqali ko waaye la kulli xaal mu na ko yaa teqale mbooloo mi ndax it mbooloo du objectif mbooloo jumtukaay la dañuy booloo ci maanaam lu yàlla gërëm waaye ànd ci nu moom loolu lislaam xamu ko boo tax mu ne ma wax la nag léegi ay mbir yu lay gaaral maanaam ndawul ndawul Quraysh mooy wax ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu koy wax wala wax ci suufe ji ne ko su fekkente alal nga bëgg ñu dajaleel la ba nga ëpp alal fi noonu subhaanallah su fekkee da ngaa bëgg itam siiw ak wàcc wàccuwaay nga bëgg ñu ñu def la nga seen sang bu ko defee bala ñoo wax dara yow la ñuy maa maanaam fekkee da ngaa bëgg kàddu rek da bëgg siiw waaw ci waxin kon ñu jox la kàddu ko duñ duñ duñ dogal dara waxuñu yow su fekkee ak ngóor nga bëgg itam mën nañ laa fal boobu su fekkee itam lii lay feeñu nii ak ak wér di la nga wax ko ñu faj la ñoo say mbokk waaw fekkee day loo xam ne la dikkal te mënoo ko kii ñu la ñu wutal la ñu wutal la ay ay limaay ni koy waxee waaw ñu ci def defal ay tëpp tëppal wala ñu wutal daal garab kon joxe suñu alal ba ñu la lii la andi lii la Utba ibn Rabi'a andi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jóge ci Quraysh mu nekk wàllu affaire xëpp waaye ba mu noppee ni ko kutubu siira di nettalee moom sallallahu alayhi wa sallam benn tontu la mooy da leen a jàngal njëlbeenug sóoratu sóoratu Fussilat ba ca suñu borom waxee ne. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود maanaam foofu li bi nekk mooy suñu dëmmoo yoo nanga ñu jël dëgg gi na nga xam ne maa ngi leen di tiital maa ngi leen di xupp ci saayiqa muy sawara wala bëggal muy wàcc ci seen kaw mu mel ne ma wàccoon ci Aad ak Samuud ndax Aad ak Samuud ñoom seen histoire araab yi xamoon ko dañ naan romb seeni kër bu ñuy tukki jëm saam loolu booba nag boo demee trouve siéré bi bi mu jàngee loolu dañuy wax dafa tiit te ñu tey gimiñu bi sax da ko doy na ndax ragal nañ la ñoom lu mu leen wax rek daa leen dal ndax xam xamoon nañ ak dëggoom waaw kon loolu euh, moom lañ jëlee ci jotaay boobu gis nga yaa ngi gis ba tey sabaat gi muy dëgër gi mu dëgër ci wooteel yàlla ak luñ ko mën a xiirtal ci ay xeeti koom-koom addina moom dëggu yàlla gi jàll rek doon itteem mbokk mi tali bi jullit bi baal xel loolu baax a baax bu la kenn mën a Euh, kromp ba tax nga bàyyi dëggu yàlla dëgg moom euh, lu mu la mayut maanaam caaxaan du la ko mën a may caaxaan nag ak jay mën na ca ànd rek waaye bal naqdifu bil haqqi ala al baatili fa yadmaghu fa idha huwa zaahiqun wa lakum li ma mimma tasifun yàlla ko wax yàlla nee na dëgg daal la ñuy jël dóor ko ci kaw caaxaan bu ko defee bu doon nit la ñu ne kon day toj bopp ba yuur ga daal tasaaroo xam nga loolu la fàtte la fa la la ci tegu mooy daal di nax saay rek kon soo bañee naax saay jàppal ci dëgg fukkeel ak benn bi mooy léegi xupp jëriñu ñu ñu ñu maanaam xëpp gi jëriñu ñu xupp tiital loolu nag Abu Jahlin kenn gënu ko ci woon a maanaam capable ndax moom fu masaane dégg kenn ku dugg ci lislaam rek te bokk ci ñi nga xam ne am nañ wàccuwaay am nañ ginnaaw liñ koy waxee day def di ko yedd di ko ji naan ko yow da ngaa bàyyi sa diinay bàyyi sa diinay maam yi te xam nga ne sa bàyyi moo la gën waaye nag léegi li ma lay xamal mooy yow sa xalaat kenn du ko jëlee dañ dañ lay jàppe ko doyee di da xalaat kenn du ko considéré yow te itam sa saraf bi itam sa tedd nga nga am maanaam judd sa judd bi dañ ko dañ ko sippi <laughs> xoolal loolu nga xam ne siis it ba ba koo siis ab juddam bu dee ab commerçant la boo xam ne dañoo yaxantu di wut alal dañ ko naan yow kenn yow da nga lambale yow kenn du jëlee ci yow da nga da nga daanu bu dee ko xam ne amul doole amul ginaaw nag moom wax ji du ko ci fekk day di ko dóor ko rek waaw dóor ko lay def te kenn du ko lijjanti subhaanallah kon loolu itam dara boo xam ne beneen méthode la boo xam ne ku yàlla dimbaliwul nag <laughs> man ngaa bañ a mën a euh, sax ci kanamam ndax ki nga xam ne kilifa la am kaddu ah maanaam buy bu lay kenn du ne yàlla ci yow loola bu la yàlla dimbaliwul man ngaa teg sa tànk fa nga dëkk bi ñoom ñoŋul ñoomu neen la waaw kon loolu euh, lu metti la loo xam ne la cay topp dana ñëw euh, nga xam ne am na ci saxaaba yi yoo xam ne dañ leen dóor dóor ba. wax loolee lañ bëgg a wax doonte seen làmmiñ dana ko wax it waaye seen xol moom la muy gëm mooy yàlla euh, ba mu def bilaal rek bilaal moom dañ koy dóor waaye daan ahad ahad dañ koy dañuy jël sax ay ay ay ay ay xale takk ak buum ci loos bi di ñu ko womat ci naaju màkk bi mel mel nam xar waaye téerewul moom mu sax ci pas-pasam euh, maanaam doyadal boppam fi kanam yàlla yàlla daal koy euh, jox cër bi mu ko jox naka noonu imaam muslim mi ngi nett li ne Abu Jahlin daa wax ne waaw ndax Muhammad moom day jël suufu këpp këppal moom day taqal xar kanamam bi suuf rek ko gis daal ne waat naa ko ci laata ak Uzza waat naa ci laata laata laata laata ma fekkee tey a xalamu fii da danaay ñëw fekk muy julli ma jog ci loos bi benn bis mu def loolu di julli ci kaaba gi mu dikk naan a jóge ci loos bi maa bàyyi mu fi jot mu jàngi ko xoolal xoolal xoolal loolu waaye amul lu mu ñu seen ko mu ne waqat maanaam di arrière deltu ginnaaw jël loxo yi mel na kuy am lu muy kal mel na la am lu ko waaji ñu ne ko waaw lu mu doon aba mu ne leen man daal damaa gis ak ak ak sawara sama diggante lu tiit ak ay la gis ak kàmmuk sawara yonent bi sallallahu alayhi may jege woon malaaka danañ ko fëkk daggate ko cër par cër laa ilaha illallah kaaraanga suñu borom lu doy waar la ko bëggoon a def yàlla wàccee ci alxuraan loolu mi ngi surtout alaq wax ne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 كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب defal foofu borom bi tabaaraka wa taala nee na doomu aadama daal day bew bi nga xamee ne gis na boppam ne am na dara waaye yàlla waar ko na ko sa boroom ngay dellu de yàlla ne wax leen ma arayta foofu dañ koy firee wu axbir nii ki nga xam ne maanaam moom day tere jaamu bi yàlla muy jullil yàlla te loolu Abu Jahl moo fi jiitu bi may kan ki ci jiitu mooy Muhammad alayhi xoolal xanaa ak sa wax ma sa ci dëgg di digle ak yàlla tamit ah wax ma itam donte waaje koy tere moom maanaam day day weddi mën a wan ginnaaw dëgg muy Abu Jahl yàlla waar ko ne xanaa xamul ne yàlla nga koy gis yàlla ne su bayiwul li muy def day danaa ko toroxal jàpp ci cembaanam muy kabar googu ci ci jël ndal boppali ci jëbi maanaam daal melal cembaan bi na naa suyet kaasiba maanaam cembaan la goo xam day fen day ju day juum day wàcc yoonu dëgg yàlla ne te moom kat fu mu jàpp ne man dafaa laqatu bu ma koy duma moo koy mbugal na wooyu waa péncam fal yenow naa diya xam nga man ñan laay woo yàlla ne zabaanee bi malaayka yi nga xam ne ñooy mbugal yàlla ne ko déedéet bu ko topp de su jootal te jege-jegal sa borom kon yàlla ci boppam mi ngi koy biit mi ngi koy saxalal di ko dëgëral yàlla ñu yàlla saxal ci dëgg kon loolu firi aay bi xëy na aay yi taxuloo jóg loolu laaj na geneen beneen yeneen jotaay waaye dañ lay wan ne rek mbokk mi fàttali ne lii alxuraan ci boppam moo koy xal wane ne bokk na ci li ñu doon def sallallahu alayhi wasallam mooy di ko lool ci yaramam di ko jéem a fekk ba muy julli ñu jog ci loos wi xam nga loolu yàlla bi la ko defee da lay jekku lool waaye nag yàlla aar ko ca yàlla yàlla aar aar moo leen jullit bokk na ci itam yi nga xam ne wér la Imam Bukhari nettali ko ci xeetu lor yi ñu ko doon lor ndax ba tey ñu ngi ci usloobu lor nag léegi jëm ci jëmmam nag di ko jéem a fagagal nee na daa Urwatu Zubayr day wax ne damaa laaj Abdullah ibn Amr ne ko lan mooy li gën a tar bokkaalekat yi def ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tekk ko ci ay ay mu ne day gis naa Uqbatu ibn Abi Abi Mu'ayt mu fàttali bokkoon na ci kuréel bi euh, waaye délégation bi demoon di négocier ba mu fettiwut mu di mu dikki def lii ñu waaj a wax mu ne gis naa Uqba moomu mu dikki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk muy julli xoolal occasion bàyyi bu muy julli xam nga ay ragal lañ bàyyi ba nit ki julli ak ah, seenu njàmbaar anamu mu daal di jël maanaam euh, euh, lambaayam li mooy mooy rida teg ko ci loos bi daal koy xoj xoj ko xoj bu dëgër subhaanallah rasulullah la xoj Abubakar ñëw daal koy puus daal di jàng li yàlla wax ne ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi allah wa qad jaakum bil bayyinati min rabbikum ndax da ngeen di rey nit koo xam ne moom bakkaaram moom moom waxul lu dul yàlla saa borom yàlla te moom sax boole na ci addina ay lay yu leer la ba ba ba ba ba ba Moussa di woo Firawna am ci biir njabootu Firawna ku gëm Moussa ba noppi ñëwi koo feeñal yaqtum imaanahu mu naa leen ndax da ngeen rey koo xam ne moom itam lii rek la wax muy kàddu la ilaha illallah daa wéetal yàlla rek te mu andi lay lay kon kay wax dëgg yàlla ku wéetal borom woote ci wéetal yàlla way war rey ko jéem ko rey mbaa jéem ko faagagal mooy ñàkk aw lay mooy mooy ak yées dëgg lii lañ doon def Muhammad alayhi salaam kon nag mbokkum jullit mi jëpp lor ju ma ju la maanaa dal sa diine yow mi jàngale diine jëpp lor ju la ci mën a dikkal li am solo mooy bul woo lor ji bul provoqué yow jàngaleel diine jàngaleel lu leer yàlla tax bañ cee leble bañ cee fay bor waaye nag boo defee la nga war def ba noppi nag natt boo la ci dikkal kat na nga xam ne lu ko raw dikkaloon na sa yonente alayhi salaam waaye daa muñ te yàlla ma ko jàppale woon ba muñee képp ku muñee te yàlla jàppale la dañuy wax ci wàllu soxnaan ku muñ muñ loolu dëgg la yàlla moom ba mu ne inna laa maa saabiriina la jeexaloon wax ji yàlla ñim àndal di leen dëgëral di leen dimbali mooy muñkat yi wasbiru inna laa maa saabiriin kon Muhammad sallallahu alayhi wasallam fii daa muñ xam nga ne di julli te defoo fekk la fa ngay jullee xoj la ci kanam say bokk ñu ko def say bokk kese lañ yéen a bokk benn famille bi lépp amuñ benn yëg ci yow lu dul fas yéene la faagagal te yow sàccoo leen demoo seen kër ru jaxase leen waxoo dara lu dul xanaa jaamu sa borom ak woo leen ci jaamu yàlla képp ah loolu de mooy doxin wi nga xam ne tëralin sa borom tabaraka wa taala képp koo xam ne bëgg ngaa dund lislaam ju sell yoo xam ne raxul dara bay boo nag nga jéemal lay taayoo ab teeñu muñ nag te xam ne ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun yàlla nee na waa ndax nit ñi dañoo ne dañ ne dañ leen bàyyi noonu dañoo amana aman naa te kenn du leen nattu loolu mënut a nekk mbokk yi wa laqad fatanna alladina min qablihim fala yalamanna allahu alladina sadaqu wala yalamanna alkadibin kon loolu euh, beneen la boo xam ne doona ko jëfandikoo moo tax Abubakar ba tey am na ci wàllam ci loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam def nañ ko xeet loolu yu bari xëy na yëpp du duñ ci mën a ñëw waaye duñ mën a fàtte nag bi nga xam ne itam Abu Jahlil moom tam saay-saay bu mag boobu def na ko Euh, defal na ko yonent bi sallallahu alayhi wa ak li muy li ñuy li ñuy bokk lépp xoolul dara mu xam ko bu wóor yooyu yëpp waaye mu daal di jóg rek fas yéene ko faagagal ana lan la Abu Jahl def moom itam wala boog ci lenn ci yi mu def moo di ne fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallama euh, di julli mu ne gaa yi ana koy dem andil ma seburiitum gileem maanaam gileem ya ñuy rey la ñuy dina ci bàq nga buñ ko feesee ku ma koy andil loola laaj de lu mu ci nar mooy bàyyi bu Muhammad di julli. wala di këpp këppal dañ koy waxee ñoom di di di xalamu ma jël sébrit mi am sébrit nga xam ne mën naa faa yendu ba xet ga bon xasaw salte amul lu ci xalaat lu dul fekk laa ilaha illa laa ilaha illa muhammad rasulullahi di julli indal kaabati ci ëttub kaaba ga nga jël am sébrit ah daal koy sotti ci kawam seetal loolu mbokku mu tedd bi loolu waxuma la métit bi waaye métitu yaram bi maanaam salte bi waaye métti xol wu ci di këlin rek nga xam ne tuutal gi lay jéem a tuutal ndax xam dafa ah, ko indi rek ma def ko ci garmaat ba ba ba ba kay dem indi ko mu xool ba sa la ma sa jóot mu daal koy sotti ci ginnaaw ah te na maanaam ah, Abdoulaye Mas'ud nee na ma ma mooy net leex histoire mu ne ma maa ngi jàkkaarloo ma ko gis dara ñu ànd reetaan di di di kew kew ku nekk da koo sotti ci diggante bi la ko maa ngi xool ne mënu ma ci dara ñu reetaan ñoom. di wëndeelu ku nekk tàpp sa borom yéen du sëgg rek ba doomam Fatima mooy ñëw alayha ridwanullahi taala wa ala jami sahabati ñëw daal koy dindi loolu yëkkati boppam daal di wa yéen du yéen du sallam siggi rek ñaan leen yàlla ne allahumma alayka bi quraysh ñetti yoon yàlla maa ngi lay ñaan yàlla quraysh maam nga tinuma ji ñoom fayul ma leen ndax it euh, baale baax na lool waaye am na ñooñu baale leen da yokk musiba moo tax da leen ñaan yàlla te ba yàlla ñëwee ñëpp yëg na ni yàlla ñëw mbugalam euh, euh, Dakar aw Bakar rek muccut ci loolu moom tam lor nañ ko lor yi metti ba tax na sax daa mujj far euh, bëgg a gàddaay dem ah Abdel Nasson ci boppam it moom itam am na wàllam ak mboolem saxaaba yi nga xam ne ku ci amutoon ku la aar xataa ñi amoon jël i bopp ñoo far léegi jël jël jël jël jël douze ku nekk sa mbokk moo naan léegi man bàyyi leen kii fee kii seen famille man maa ko lijjanteeg moom xanaa lañ xamoon ci mbokk mooy da daan fat mbokkam di ko dimbali bu nekkee ci lu baax mu jàppale ko ci bu nekkee ci lu dëgg mu waxtaan ak moom négocier ak moom waaye nag ànd ak ñeneen di del ci kawam loolu moom wax dëgg yàlla ak nitu di ku la balaa nekk ak ak jubadi te ñoom ñii loolu lañ doon def moo tax mbooleem yi nga xam ne ñi dëng tey ci kaw suuf ñu ngi koy def eh, di ko jéem a xeexal islam xëy na dañ ko évoluer rek affaire bi bu ñu ko waxee noonu dañ koy gën a développé ba ba ba mbir bi gën a yaatu waaye méthode yi rek la woon du ko loolu ay mbir la yoo xam ne xam naa ne dañuy taxawal foofa jotaay bii di ñëwaat ci la ñuy eggalee yeneen méthodes yi nga xam ne dañu ko jëfandikoo embargo euh, bi leen defoon nag euh, di leen jéem a ak buur yeeg euh, jéem a dagg seen yoon wi ñuy dem abasa bu nga xam ne ba métti métti kon bii di ñëwaat incha allah taala danañ jéem a ñëw ci bi mbiri métti métti nag buñ mot gannaaw bu mot la yenn yenn asali bi nan man pexe lañ def nag dañoo toog noonu ñu leen dóor di xoole rek wala dañoo jéem a able dem feneen fu am mën faa jàmm yàlla wala lu ñu def loolu ñoo ngi taxaw ni foofu di xaar ba jotaay bi di ñëw di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal nu dégg gu rafet te defal ñu itam toppil wu rafet waaye mu fay ñu fay gu rafet te musal ñu ci euh, xeex lislaam baa xeex lenn loo xam ne dëgg la musal ñu itam ci ku xeex lislaam baa ko xeex baa ko xeex loo xam ne dëgg la boole xoolal julli ñu tàppe ko ñëpp bokk ànd jàpp ci hamdulillahi bi nga xam ne moom la ñu yàlla wax ne te muy alquran ak sunna mu ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an waaye kon wala tafarraqu ñu bañ a teqalikoo loolu yàlla ñu ko yàlla defal yomb na ko lool wa ma zalika alallahi bi aziz wa sallallahu wa sallam wa barik ala abdihi wa rasulihi muhammadin amin wa alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi hadihi ila yawmi ddin subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وضياءنا هذا واضمت إلى صفحاته والعالم انتشك الضياء ونعيم نفحاته وأتل معي وأتل معي آه